Euh, salaamaaleykum salaamaaleykum gars yi maa ngi nuyu ñëpp di char ñëpp ah maa ngi nuyu ñëpp. Euh, maa ngi ñëpp di char ñëpp ah dañuy ñëw rek def benn petite vidéo rek euh, donc par rapport ak li nga xamante ne nii mooy dernière nouvelle wala dernière révélation bi ñu def si professeur Cheikh Oumar Diagne ak li nga xamante ne nii donc mi ngi xew si biir kaso bi Daouda maa ngi lay char di wax gars yi partage leen live bi rek ñu ñëw donc commencé ko très rapidement parce que du gudd dañuy joxe ay fait rek ak euh, li nga xam ne mi ngi jot am ci biir kaso bi ak euh, yenn yi nga xam ne mag Sall mi ngi koy def pour négocier euh, donc voilà ñu ñaanalante parce que live bi du gudd quoi. Eh, ziar naa la Adi Bayor maa lay ziar Baye Jamil Sall maa ziar gaa yëpp maa ngi ah, di ziar ñëpp eh, voilà eh, donc maa ngi di ziar ñëpp donc live bi du gudd comme duñ fi nekk rek di xaar di wax ne ku dugg rek na nga live bi parce que li ñu wax ci professeur Cheikh Omar Diagne yaakaar naa la solo te ñu ñëpp ñoo war a xam donc li nga xam état bu Sénégal mi ngi ko nas jamono bi ñu toll nii sur l' affaire Cheikh Omar Diagne donc ak di gën a aggraver affaire bi ak di xool euh, ñan la si euh, impliqué bu ko defee affaire bi gën a am doole. Euh, donc yaakaar naa te depuis bi mu commencé nag si loolu la ñu nekk mais jamono bi ñu toll nii donc affaire yi dafa gën a garaaw Lamine Koli maa ngi lay siyaar maa lay siyaar bu wér a maa lay siyaar di ko wax ne ko suba si. donc di fàttali bala ñuy ñëw si yi rek dañuy fàttali d' abord Cheikh Omar Diagne ñu taxoon ñu téye ko si kaso bi. donc Cheikh Omar Diagne li tax ñu téye ko si kaso bi mooy que ne dafa am benn waay boo xamante ne ni moo ko port plainte muy Djibril Waar euh, di membre PCA euh, bokk Benno Bokk Yaakaar bokk si ñi nga xam ne Macky Sall daf leen yóbbu si euh, donc si si si assemblée nationale yi gën a kawe maanaam si bureau Nations Unies yi pour ñuy wër àdduna bi di défendre lépp loo xam ne donc dafay laale ak droit ak ak yelleefu góor jigéen yi si àdduna bi yëpp.

muy Mame Makhtar Gueye bu Jamra muy professeur Babacar Mboup muy professeur Cheikh Omar Diagne muy Abdou Karim Gueye euh, euh, muy muy muy muy Dambodj je pense ak ñeneen ak ñeneen ñu bëree bëri ay kilifa yoo xam ne ñu ngi woon dox koroog ci plateau boobu noonu donc bi mu duggee euh, daf ne ñi nga xam gars yi may leen may kër ah, parce que laa fi gars yi dañ koy dab donc bi mu duggee daf ne ñi toog foofu noonu di dama yaakaar ne bi ñu nekk xale ay góor jigéen dañ leen a mës a tëddee wala sax dañ mës am problème ak ay góor jigéen moo tax ñu sonal góor euh, di wax gars yi parce que gars yi dañuy tànt di saboter live bi donc voilà bu commencé rek dañ koy commencé saboter quoi di ko signaler donc ngeen bës kër yi bu ko defee ñu mën ko porter euh, donc noonu la demee léegi nag euh, bi mu duggee si émission bi daf ñi fa nekkoon daf na leen dama yaakaar ne ñooñu di wax mbirum góor jigéen bi ñu nekk xale ay góor jigéen euh, dañ leen a mës a tëddee moo tax ñu sonal góor jigéen yi euh, yaakaar naa ne loolu dara fekk aussi mais nag ñu gis ne plainte bi mu dugal Cheikh Omar ñu bari dañu jàpp ne euh, diffamation la insulte publique fekk na affaire yi demewul noonu ni mu demee mooy dafa am góor jigéen yoo xam ne kuréel góor jigéen yi nekk ci àdduna bi ñoo xamante ni nii Cheikh Omar Diagne daf leen yàgg a si ay waxam ci ay gëstoom parce que professeur la di teg ay fait di wan sénégalais yi naka la góor jigéen yi def ay pexe pour am doole fii Sénégal ak yan pexe la Macky Sall di def en tant que président de la République pour dooleel góor jigéen yi Sénégal. Cheikh Omar Diagne yàgg di xeex loolu ku ko yàgg xam depuis 2013 2014 Cheikh Omar Diagne ba léegi mu siy xeex donc def si liggéey bu extraordinaire def si loo xam def si ay révélation yoo xamante ni même ñi si biir ànd saamu jikko yi sax gars yi mënuñu woon a mënuñu woon a gëstu yenn yenn affaire yi nga xam ne Cheikh Omar Diagne mi ngi ko doon indi. boole si yemul si gëstu rek mais dafa boole euh, jël lépp loo xamante ni maanaam dooleem la alalam la ak man-manam ak kàttanam jël ay sëfóoram ay otoom lépp teg ko si disposition bu ànd sàmm jikko yi bu ko defee ñu man di euh, wër partout dans le monde pour di jàllale message bi nga xamante nii ñu ngi koy bëgg a jàllale pour défendre li nga xam mooy ay valeur africaine ak valeur sénégalaise bu ko defee góor jigéen duñ maanaam mun anaam doole Sénégal bi ñu njëkkee nag mooy euh, Cheikh Omar Diagne bu leen fàttali ne tey lay def 50 jours ci bir prison bu rebeus mu nek chambre 38 Macky Sall dafa tek ay pexé yabal fa ay cadre APR ak ño xamne ñu ci bir benn bokk pour ñu dem waxtaan ak Cheikh Omar Diagne pour négocier ak mom comme niñ ko yagge defé si heure bu ñu activiste wala ñu japp opposant bo xam daf leena sonal ki ci njëkk moy Abdoul Mbaw Abdoul Mbaw Euh, yaakaar naa semaine bee passé la dem na rëbës pour gis ki nga xamante ni nii mooy professeur Cheikh Omar Diagne te Abdou Mbow bu fa demee dafa dem ci ndigalul Macky Sall mais nag heureusement Cheikh Omar Diagne daf ko récité parce que Cheikh Omar Diagne jamono bi ñu toll daf ne képp koo xam ne ñëw nga di ko visite nangul na la nga dugg pour seet ko waaye képp koo xam ne da nga bokk ci mouvance présidentielle bi maanaam da bokk APR wala benn bokk yaakaar daf ne sax bu mu dugg parce que bu duggee du ko gis kon Abdou Mbow dem na fa. ngir négocier si ndigalu Macky Sall président de la République pour mu négocier ak moom lañ fa doon négocier nag kenn xamu ko parce que comme jot a toog ak Cheikh Omar Diagne mënu ma ne lii la fa wax wala lii la fa wax waaye en tout cas daal liñ leen mën a waxal te xam ko te mu leer ñu nàññ te mu génn si ñu professeur Cheikh Omar Diagne mooy kane ay cadre APR kenn si kenn ki di Abdou Mbow jëm na fa dem ngir gis ko ngir mën a waxtaan ak moom

ne ñoom Macky Sall day dooleel góor jigéen loolu moo tax ñoom ñu perte élection yi daan leen nag bëgg naa ngeen dem si ñëpp koo xamante ni sénégalais nga wala yéen ñuy xutba si jumaa yi ngeen def ko seen yitte ne leen senegal yi ne leen Macky Sall kat nekkul di daganal góor jigéen doxul si mbirum góor jigéen te fekk maa ngi fi góor jigéen du mas a am doole Sénégal waaye ñun xam nañ ne Macky Sall bu waxee loolu dafay fen parce que pourquoi mën ne dafay fen mooy depuis 2014. gis nañ jéego yi nga xam ne nguuru Sénégal mi ngi koy def ngir dooleel góor jigéen ci Sénégal euh, dafa am lu am bi bi passé muy dama gis euh, bi affaire Gana Gueye bi ma gis Aly Ngouille Ndiaye bind ci ne day jàppale Gana Gueye maanaam ne si si Gana Gueye quoi ne moom day jàppale Gana Gueye si ndax conviction yi nga xam ne gëm na ko pour bañ a porter li nga xam ne mooy mooy LCBT waaw Aly Ngouille Ndiaye bul fàtte ne euh, depuis 2012. yaakaar naa mu euh, depuis 2012 2013 mu nekk ministère de l' intérieur li ëpp si ay récépissé góor jigéen ci Sénégal Aly Ngouille Ndiaye moo ko joxe donc moom moom moo taxaw ne day soutenir kenn koo xamante ne ni dafa bañ a porter li nga xam ne mooy mooy LGBT. donc xoolal naa fekk googu noonu suñu homme politique donc euh, di di di di suyee ak ñun ngay joxe ay récépissé jigéen ba pare taxaw ne maa ngi dooleel koo xamante ne nii donc dafa ma porte li nga xam ne mooy mooy góor jigéen. léegi nag loolu day wane naa feq ak ñàkk wet ak ñàkk respect gi nga xamante ni ni eh, nguur Macky Sall ñi ngi ko nekkee fii depuis 2012 ba jamono bi ñu toll nii. ñun nag amuñ benn problème ak moom mais ki ñu amal problème mooy ki nga xam ne mooy jël ay récépissé di ko jox ay góor jigéen parce que mënoo jël récépissé jox ko góor jigéen fii si Sénégal ne ko man nga am am nga droit def sa base def sa mouvement def lépp lu la neex ba pare am sees ba pare nga ñëw taxaw ne maa ngi maa ngi soutenir koo xamante ne ay góor jigéen ñoo koy néewal doole donc loolu euh, c'est pas du tout sérieux léegi nag ginnaaw ay cadre APR yi nga xam ne ñi ngi dem prison bu rëbës si si si si li professeur Cheikh Oumar Diagne wax ne dañ fa dem donc pour bëgg a wax ak moom Cheikh Omar Diagne li mu teg dafa kaleer dafa leer naññ te kenn mënu koo dugal si ay eh, ay caaxaan wala affaire ñàkk fayda moo tax def na leen képp koo xam ne daf fi ñëw te bokk APR bokk si mouvance présidentielle bu leen ko bàyyi mu dugg parce que bu duggee tamit du ma gis loolu mooy fulla ak fayda parce que nag du ma nangu nit ki nga nekk di kaas wala di xeex li nga xamante nii mooy ay valeur pour ñu garder suñu ay valeurs yi nga xam ne suñu mag ñu baax dañ ko bàyyi fii Sénégal ay nit jàpp la tëj la pour euh, euh, euh, pour pour pour neexalee ko ay góor jigéen ba pare wëlbatiku ne day ñëw waxtaan a yow pour corrompi la pour ne la loo bëgg ñu defal la ko pour ñu mën la bàyyi Cheikh Omar Diagne bu nangu woon tey tey tey Abdou Mbow gisoon ko korog fekkoon nangu woon na Abdou Mbow duggoon si biir prison gis ko bu fekkoon ne nangu woon na yenn cadre affaire yi nga xam ne ñoo doon ñëw di ko seet ñu gis ko heure bi génn na si biir prison bi waaye nag boobaa day dañuy dem. parce que nañ waxante dëgg mooy lenn si am mooy da nangu ñu gis la da ngay nangu ñu waxtaan a yow da ngay nangu ñu toog ak yow waaye nag say valeur moom doo doo tax toogati fenn si télé yi naan noo garder ay valeur non non Cheikh Omar pour wax leen yéen Sénégalais yi ngeen xam bokk na si nit ñi nga xam ne ñu gën a dëggu si Sénégal waaye bokk na si nit ñi nga xam ne dañu euh, seen ngëm-ngëm tellement que dafa jéggi dayoo te seen seen ngëm-ngëm bu ñu xasee ba gëm dara ba di ko xeex dara mënu leen see jëlee. xam naa ñoom nag dañu jàppoon ne Cheikh Omar Diagne xam nga mook sama classe bi ñoo amuñu dara dañuy xam nga dañuy taqale taxawaalu Cheikh Omar Diagne dafa am lépp loo xam ne nit daf ko war am li ñu jàppee sutura maanaam li ñun li ñu jàppee sutura mooy nga am xaalis am kër am ay jabar doom am ay oto am loolu Cheikh Omar Diagne lépp daf ko am ba pare maanaam Cheikh Omar Diagne lépp loo xam ne sutur loola maanaam li nga xam ne dañ naan nit ki bu ko amee man na dem toog këram Cheikh Omar loolu lépp daf ko am waaye nag daf ne Sénégal sama réew ak samay valeurs yi nga xamante nii sama mag ñu baax ñi bàyyi woon nag ko fii sama réew moo ma gën a lépp lu ma mën a am si àdduna loolu moo waral tey mu nekk si kaso bi mu nekk nii léegi nag loolu noonu xeex na ko ba egg fii nii du nangu kenn di ñëw di ko yàqal si ay corruption ay guerre ay baara yëgoo parce que Macky Sall loolu rek la fi nekkee ginnaaw nag bi mag Sall bi Cheikh Omar Diagne révisé ne ki nga xamante ni mooy Abdoul Mbaw du ko gis si biir prison bi ak cadre APR yi gars yi ñu ngi tey yeneen pexe. pour xool fuñ feneen fuñ mën a jaar pour mën a dem gis ko pour mën a waxtaan ak moom mu am lu mu bàyyi ñoom it ñu am lu ñu bàyyi ñu mën ko génne si kaso maanaam li pour pour leeral leen ne leen si euh, Sénégal euh, euh, du du du procureur wala du doyen la siis wala du magistrat yi ñoom ñoo toog naan dossier bii lañ war a àtte bii waruñu ko àtte kii kii diw lañ koy bàyyi ki sangam noonoo loolu amu fi xam nga lan moo fi am mooy Macky Sall moom mooy jàpp nit ñi di leen tëj si kaso bi bu demee ba bëgg leen a génne génne leen si biir kaso bi te kenn mënu si dara. Sénégal fi justice bi indépendante wu Sénégal fii magistrat amuñu dara lu ñuy dogal ci justice bi Sénégal fi ni droit de justice procureur amuñu dara lu ñuy dogal ci justice bi kenn rek moy dogal muy Macky Sall président de la république mo tok ci justice bi di def lu ko neex té kenn du wax. barki démb dañu euh, conseil constitutionnel dañu dañuy valider li nga xam moy liste benn bokk yaakaar ak yeewi askan bi ñepp di tàccu bravo parce que euh, lool moy li norme waaye nak

parce que Abdoul Baou fekke mi ngi seetaan live wala ku ko xam di seetaan live bi na dem laaj Abdoul Baou ne ko prison bu Rebeuss lan la fa doon def pour gis Cheikh Omar Diagne xam nga ñun wax du du loo xam dañuy tok di infanté di ko parce que buñu ko waxé li ñu fi nar fekk xam nañ ko muy diffamation man nañu fekk parce que man nañu dem porte ñu plainte boba ñoy am problème Abdoul Mbaw dafa dem prison bu Rebeuss si ndigalul Macky Sall pour gis Cheikh Omar Diagne pour négocier ak mom Cheikh Omar Diagne ne garde yi képp ku bokk APR bu mu dugg parce que bu duggé timit du ma ko recevoir barki alxuraanul karim kooku moo am ay valeur kooku am gëm-gëm li jëntuwu leen nañu ko tëj 10 ans mais du tee li mu doon xeex tey la koy gën a xeex fi mu taxawoon a taxaw te kenn du ko fa jëlee léegi nag am ñeneen ñu ñu si affaire bi appareil Mbaw ak cadre APR yi am ñeneen ñoo xamante dañ leen a woo ñoo xamante donc ay ay ay sëriñ lañ donc jox respect trop pour ñu ñëw porte wat Cheikh Omar Diagne lu ma 37 plainte yo xam jaay gars nañ ko mais heureusement Cheikh Omar Diagne bi ko wolo fi nga xamanteni nii moy moy mooy dëgg su bu ma juumal pour mu wax ci plainte yoy non jëlé ko pression bu Rebeuss parce que ci semaine bi passé la tombeek avocat yi ñoom nekkuñu fi woon bi mu demee wuyu ji tamit euh, ça se passe bien parce que ku xam Cheikh Omar Diagne xam nit la ko xam lepp lo loo wo nga ko ci wala lepp lo xam wax na ko rek ay da ci ciy te da ci taxaw te du delu ginnaw ci dara amul dara lu mi ragalé kenn bi mu demee wuy dina na ñu déglu ko après ñu bàyyi ko mu dem parce que xam nañu né penante yoyu gaay do duggal duggaluñ ko ngir seen sangu duggaluñ ko parce que Cheikh Oumar Diagne euh, daf leena saga wala Cheikh Oumar Diagne daf leena a défamé mais dañ ko duggal parce que état bu Sénégal mom moy dem di wëri ay nit ñew na leen penante leen Cheikh Oumar Diagne ci li waxon na li defoon na li di xol ay vidéo ki wax na mas wax sëriñ bi li mas wax li mas na ki kii mas na diw loolu lépp liggéeyu état du Sénégal la moom moo nekk si loolu di ko defloo ay ay ay sëriñ bu ko defee ñuy dugalaat ay penante contre Cheikh Oumar Diagne mais billahi wallahi wataalaahi dañuy sonal seen bopp mënuñu si dara dëgg rek mooy dëgg te dëgg rek mooy mujj Cheikh Omar Diagne kenn du ko humilier Cheikh Omar Diagne kenn du ko ñàkkal fayda personnalité bi mu am si bëtu sénégalais yi parce que yàgg di xeex di défendre ay valeur loolu am ko ba pare ba pare nekk combattant nag Cheikh Omar Diagne euh, man bu ma doon jël exemple ñi nga xam dañuy xeex ay valeur Sénégal dama naan kenn gënu ko nekk combattant xool leen euh, manifestation waxuma la Cheikh Omar ay ay ay mois de mars nga xam ne ñëpp a génn noonu ay manifestation yu siiw mais Cheikh yoo xamante ni sa amul benn nit parce que photo yaa ngi publié naa ko boo demee sama bi di nga ko gis da nga koy gis day ñëw teew moom dafa gëm Sénégal la gëm parce que manifestation bu ñoom kilifa bii mujj dafa ñëw teew ak bi ñuy xeex du dugg seer bi donc dafa nekk koo xamante ni nii du rek euh, du rek euh, day xaar ni ñëpp jug rek mu jug mais dafa gëm ne lépp loo xam ne laal na Sénégal moom dafa war a jug taxaw kon kooku dafa dafa soxla suñu suñu nibbal ñu jàppale ko dafa soxla ñun askan bi ñu taxaw xeex ngir ko ñu libéré ko ci kaso bi mu nekk parce que teewuñ ko fa dara lu dul jaay doole jaay doole rek moo tax ñu téye Cheikh Oumar Diagne ci kaso bi Macky Sall moo ko fa téye pour heure bu ko bëggee bàyyi mu bàyyi ko mais nag dañuy sonal seen bopp mënuñu ci dara te nag bu yaakaaree ni day tëj Cheikh Omar Diagne ci kaso bi ñu toog di ko seetaan mu ngi nax boppam dinañu taxaw xeex ko lépp lu ñu man dinañ ko ci def pour que ñu libérer Cheikh Omar Diagne lépp lu ñu man dinañ ko ci def pour ñu libérer Cheikh Omar Diagne Macky Sall nag boo yaa boo yaakaaree ne yaa moom justice boo yaakaaree ne yaa moom Sénégal wala sa baay moo moom Sénégal yaa ngi nax sa bopp moomoo Sénégal donduwoo Sénégal sa baay moomul Sénégal say waajur moomuñu Sénégal Sénégal ñun Sénégalais yi ñoo ko moom Sénégal ñun sénégalais yi ñoo ko moom si si ña fa nekk ñun sénégalais yi ñoo leen di fay ku mu neex nag mën nga wax lu la neex waaye Cheikh Oumar Diagne moom diñ ko libéré si nii wala si naa parce que gis nañu bërki démb Macky Sall dalal benn góor jigéen si pale bi yéen gis ngeen foto yaakaar naa ne dëratul sax ñu fiy dellusiwaat mais à part góor jigéen bi Macky Sall dalaloon euh, bërki démb si pale bi am na beneen góor jigéen boo xamante ni mooy euh, ki nga xam mooy premier ministre Canada Macky Sall daf ko dalal si palais bi ñoom ñëpp xam nañ ne ay góor jigéen la yoo xam nëbbatuwuñ si àdduna parce que dañu marié am ay am ay jëkkër ay góor quoi Macky Sall di leen dalal suñu pale bi si même temps mu ne moom day xeex ay valeur si même jamono boobu mu ne moom fekk mi ngi nekk président góor jigéen du a am doole Sénégal loolu Macky Sall bu ko waxee dafay fen waxul moom moy dolel gor jigéen yi moom moy moom moy bàjjalu gor jigéen yi ci senegal moom moy tax gor jigéen yi di am dolel ci senegal fi may tëjee live bi nak moy di wax bepp senegalais képp ko xamanteni ni da nga gëm ay valeur képp ko xamanteni ni da nga gëm ne sunu senegal ñun ñoko mëna mën a defaral suñu bopp képp koo xamante da nga gëm ne gor jigéen warul am doole senegal élection yi nañu leen boycotté bu ñu votel benn liste Benno Bokk Yaakaar parce que ñoom ñooy taxaw di dooleel góor jigéen yi parce que ñoom ñoo taxaw bi suñ mun taxaa paree pour signer pétition ne nañu daganal nañu nañu nañu criminaliser góor jigéen Sénégal suñ Mbaye Sy Mansour bi mu taxawee signer pétition ne nañu criminaliser góor jigéen Sénégal bi nga xamante jàngu bi muy chrétiens yi ñoo taxaw ne nañu criminaliser góor jigéen Sénégal ñi ko bañoon ñenn kese la muy waa kër Macky Sall muy ne Macky Sall moo leen yabal assemblée nationale leen àggee na ngeen réciter loi bi bu mu ko voté rek mooy suñu trox tàngee parce que ñoom li ñuy dundee yëpp dañ ko yaakaar ci góor jigéen ñi dañu jàpp ne góor jigéen ñi ñoom ñooy joxe nguur dañu jàpp ne góor jigéen ñi euh, lépp loo xam ne alal boo xam ne am nañ ko wala wërsëg wala lu man doon dañu jàpp ne góor jigéen ñi ñoo leen koy jox parce que gëmatuñ sax yàlla suñu borom mais góor jigéen lañ gën a gëm ko yàlla loolu lépp nag ci Lamine Niass tam ñu ko waxoon mais wuñ ci woon xel si Lamine Niass nee woon na Sénégal référendum 2017 mu ne gis ngeen bis bu ngeen dosoonoo ba wii bi gañe noo bi jàppale ne di ngeen dund dund bu metti boo xam ne mosu leen koo dund te jàppale ne li ngeen dund yëpp ay ay kii la rek ay ay ay escalier la yoo xam ne dañuy teg pas par pas rek parce que bi gën a kawe rek mooy gën a metti gis nga escalier boo yëg boo commencé di yëg doo doo yëg coono mais la fekk ngay gën a tam di gën a kawe rek ba mujj day fekk nga sonn nga toqi ci Lamine Niass yëpp waxoon nañu ko tey nag conséquence mooy ñëw di di di ñu dal nii ñu gis Macky Sall di dooleel góor jigéen te mënuñu si dara suñu pale suñu pale bi nga xamante ni nii yenn saa yi nga dem ci murid bi nan la maanaam bërëbu maam si Ibrahima Fall la woon ñu gis ne foofu léegi mag Sall daf ko soppi foo xamante ni fa lay daralee ay góor jigéen ak ay sàcc ak ñoo xam dañuy daw ak ay liste Macky Sall ñooñu la fay dugal tey ñoo xamante ni dañu daw ak ay liste ñoo xamante dañuy jublan ñoo xamante dañu nekk réseaux sociaux yi di saaga ak ay góor jigéen yoo xam ne ay góor jigéen international la léegi ñoo ñu la Macky Sall dalal ci pale boobu noonu ñooñu la Macky Sall di dalal si pale boobu noonu nga xamante ni dañu ne Mame Cheikh Ibra dafa am wàll parce que dafa am lu mu fi defoon ñu war a taxaw mu doon loo xamante ni dañ fa war di dalal ay kilifa diine ay nit ñu jub ay nit ñu défendre ay valeur tey ji ku mel ne professeur Cheikh Omar Diagne waroon nañ ko mën a dalal si palais boobu nga xamante ni Sénégal yëpp ñoo ko bokk mais Macky Sall deful loolu ay sàcc la fay dalal ñoo xam ne ay njublan lañ ñu nekk si di saaga ay ay ay kuréel Macky ay Demba ak ay ñoo xamante ni nii ay góor jigéen lañ ñu leen dalal suñu pale boobu noonu ñun ñëpp ñu taxaw di ko seetaan moo tax ku nekk si ñun Sénégal yi nañu jàppale Cheikh professeur Cheikh Omar Diagne bu leen kenn dugal si yeneen détail gis nga gars yi billaahi wallaahi bépp détail bu ñu leen di wax naa leen ay day def lii day saaga non loolu lépp amul Cheikh Omar Diagne ku ko gën a bëgg Serigne Touba man gisuma ko Cheikh Omar Diagne ku ko bëgg gën a bëgg suñu mag ñu baax man gisuma ko parce que daf koy dund ma koy gis daf koy dund ma koy gis bo toge ak mom mu lay firil li nga xam mooy xasaayidu Serigne Touba yi billahi wala da nga nan kii nii xanaa dafa yaro ci mouride parce que tellement que daf fay jàng moom façon bindu Serigne Touba daf la koy wax ni la mom façon bindu Serigne Touba mom daf koy yem manam dimension bi Serigne Touba di bindé mom daf koy yem parce que musul gis ku mel non parce que dafa bok ci ñi nga xamanteni ni xam nga tay gaay buñ toge ci radio ak télé di di jël exemple ci bind karim dañ na la ay ay ay sens bresso ay ay ay ño xamanteni ni sax yow bo boo ñëwoon laaj leen xale bi ki nga xamne ne na ba dem université sax du len xam ay tomaso ñu lan lay wax mais cheikh omar diane dafa bok ci nga xamne ne toge ak mom di waxtaan ak mom day jël exemple ci serigne touba parce que bu len fàtte ne gis ngeen ñu jël exemple touba bi di wax liñu bind di wax liñu bind ñom ñepp touba bi yëpp nak la la wax muy anglais yi américain yi muy français yi muy muy canadien yi ñom ñepp bo boo boole bind nga tek ko ci balance nga jël li Serigne Touba bind ñoom ñëpp daf leen di daaneel parce que Serigne Touba bind na 7 tonnes 500 ak li nga xam ne kenn xamul fon la jaar Cheikh Omar Diagne loolu la gëm Cheikh Omar Diagne loolu lay jël exemple waaye boo ak ñi nga xamante ni buñ toogee ay Thomas Hobbes lay jël exemple ay John Locke ñoo xamante ni ay dañu bind ay ay ay ay nii la société war a bindee nii la état war a doxee ñoo xamante ni xamuñu dara. ñooñu la ñuy jël exemple suñu télé ak rajo yi ay suñu comme ay ay ay intellectuel ku mel ne ay Cheikh Yérim Seck nga xam dañ naan bokk na si intellé intellectuel yi gën a kawe Sénégal ñooñu lay jël exemple Cheikh Omar Diagne dafa bokk si ñi xam ne bu toogee day jël exemple Serigne Touba Maam El Hadj Malick ak ñeneen ñu ne parce que Sénégal la gëm parce que nationaliste la parce que dafa gëm ne li nekk Sénégal nekkul si benn dëkk. kon bu leen kenn jaxasee bu leen kenn dugal ci ay détails Cheikh Omar Diagne dafa gëm suñu mag ñëpp gëm ne dañu war a jël njàngale mag ñi jàngale ko Sénégal bu ñu bëggee avancé Cheikh Omar Diagne dafa gëm ne système bi nga xamante nii moom la fi Baye Niass tegoon Serigne Touba teg ko fi Maam El Hadji Malick teg ko fi dañ ko défendre dafa gëm ne si loolu lañ mën a sukkandiku pour développer mais mun ñëw sukkandiku si ay tubaab pour développer loolu nag moo ko yóbbee li mu nekk yépp di wax ne bu leen kenn dugal ci ay détails nañu jàppale professeur Cheikh Oumar Diagne mu génn ci kaso bi nañu xam ne ay góor jigéen ñoo ko téye fee mu nekk waaye du euh, du du ay diffamation kay insulte publique ay góor jigéen ñoo ko téye fee mu nekk parce que Macky Sall daf ko téye pour neexale ko ay góor jigéen li mu jàppoon terroriste Imam Ndaw ni mu jàppoon Imam Ndaw yóbbu ko camp pénal pour wax euh, américains yi ne leen jox leen ñu financement parce que jàpp nañ ay terroristes fii ci Sénégal gars yi dugal leen ay financement yu bëree bëree bëri noonu la jàppee Cheikh Omar Diagne pour wax góor jigéen ne leen ki leen gënoon sonal jàpp nañ ko mi ngi fii si prison yi bu ko defee gars yi mën nga gën a dugal ay financement donc laaj bi tey loolu la woon maa leen sant leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah euh, di wax ne na ñun ñëpp nañu ñaanal professeur Cheikh Omar Diagne wax dëgg yàlla moom de moom de mi ngi si jàmm waaw moom de mi ngi si jàmm parce que gëmul ku dul yàlla dafa gëm ne yàlla rek moo ko dugal si natt yi mu nekk def siy génnaat du mu gën a gaawee euh, te yéen ñëpp mi ngi leen di ñaanal wax dëgg yàlla amu fa benn jafe-jafe amu fa benn problème donc di sant ñëpp di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah wasalaatu wasalaam ala rasulillah daa ngeen jëf